xaaj bu jëkk bi ci ñetti xaaj yi tey dinañu waxtaan ci bàkkaaru aadama ak awa ak ni leen yàlla atte gannaaw bi yàlla sàkkee lépp dafa sàkk ab tool tuddee ko àjjana mu yóbbu aadama ak awa ca tool ba lépp li ñu soxla woon mu nga ca woon tool ba amoon na garab yu bare yu ñu mënoon a dunde amoon na ca tool ba it garabu dund gi ak garabu xam lu baax ak lu bon yàlla aji sax ji sant na aadama ne ko mën naa lekk ci garab yépp ci tool bi ba mu des ci garabu xam lu baax ak lu bon yàlla ne ko bu ci lekkee dina dee yàlla mi sell te jub li muy àtte bàkkaar mooy dee yàlla sàkk na nit may ko coobare yàlla dafa bëggoon aadama ak awa wéeru ci moom ci seeni soxla yépp te muy ci seen kaw coobare yàlla gawul woon aadama ak awa ngir ñu déggal ko léegi ma laaj leen benn naka la tool bi yàlla sàkkoon meloon tool bi dafa rafetoon feesoon ak garab yu ñuy lekk seeni meññeef lépp li aadama ak awa soxla woon mu nga ca woon ñaar lan lañu tollu àjjana di won ci mbir yàlla yàlla bëgg na nit te bëgg na ko baaxe li mu soxla yàlla bëgg na nit ki déggal ko ñett naka la garab ga leen yàlla tere tuddoon garabu xam lu baax ak lu bon ñeent lan la yàlla waxoon ne dina xew bu lekkee ci garab googu yàlla nee na ko bu ci lekkee dina dee